dama ni ana xaalis bi la ko tijjee ne kaane coowal 94 milliards yee day waaw waa forum civil day da ngay sàkku nag ko euh, enquête looloy dëgg box sobri ne coow li nga xam ne nag moo am kon ci titre foncier de 150 hectares yi nga xam ne nag maanaam Ousmane Sonko yëkkati na ko day waaw ma ne la waa forum civil ak waa COS M23 waaw dañuy woo procureur de la république day ngir nag mu yëngu ci coowal 94 milliards dama ne la juróom-ñeent fukk ak ñeent ci ay milliards rek laa la wax lay lay la la ma ne la Abdourahmane Sow waaw nee waxuma sax 94 milliards kese de déedéet waaye tamit dossier Prodac ba day bu ñu ko fàtte askan wa ca boppam kon danoo bëgg nag maanaam kon ñu gindi leen nag ci dossier yooyu loolay dëgg te nag bëri ay sénégalais yoo xam ne day waaw fi nekk nii kaay ne coowal 94 waaw dama ne la waa forum civil day daal dinañuy woo na kon procureur ngir mu yëngu termine yéene kaay ne dama ne la musiba mbaa ba ko ma di scandale 94 milliards yooyee waaw Mamour Diallo mën ca tudd day ak Seydou Sarr seen pataaral ga lay looloo jaaxal ñëpp waaye itam procureur mi nga xam ni kon na ni ngëm yënguwul waa lii lañ xamul lan la Birahim Seck forum civil ci évidence yéene kaay ne de ñun kay taxawaayu procureur ci coowal 94 milliards yi quatorze milliards yooyee uh-huh. waaw cabinet Atlas la cabinet Mercalex titre foncier 1452 herba liee coow li exclusive yéene kaay de ca yàlla ñaar ñoo xam ne day ay waay la ñu woon nekk ci diliw 94 milliards yi lée seen diggante kay yàqu na dama ne la Amadou Ba ministre ak Ousmane Sonko bi lée dootuñu sax léegi tuddante xoolante jaaroo daal déedéet te moo ni Amadou Ba day moo tax woon ñaareelu Ousmane Sonko cay politique bi cay politique bi ak seytaane gi laa ilaaha laale bi nga xam ne nag nee nañu Ousmane Sonko kon da koo laaleeg waatuloo ooy kër pétrole googee waaw Ousmane Sonko day dugg na ni ruba de maar day taali dugg na parce am na ci ay kayit ay document confidentiel yoo xam ne ñoo sànq njiital Pastef parce que société boobee waaw daal di nangu ne yëkkati na lu tolloog cent quatre l'observateur mooy waxtu samay kàddu dee benn kaay ne addada yoon wii nga xam ne day moom la jël yoonu yàq der yoonu sos te lii lañ lay def yàq sa der rek jaare ko ci ay journalistes yoo xam ne dañoo njegee nguur gi lool jegee nguur gi waaw ci wax lu dul dëgg joxe ay xibaar yu tegul fenn ay fake news ak yàq der ci kaw kon Ousmane Sonko mi lee waaye nag nañ jàpp ne day ñoom dee loolee ñuy def di yàq der Ousmane Sonko ak yooyu waaw doxagul de bu dee programme lañ ko def tam day seen programme boobu baaxagul de nit ñi duñ leen gëm te pourtant day 94 xam ni kon moom a millions cent dix-sept millions naan Michel Dame Sène moo ko wax waa ndaw soosee ci ban organe de presse la ne looloo jar a laaj ndaw soosee fan la dëkk looloo jar a laaj la Michel Mat Sène moo mee tuddul sax de Mat ndaw sax sa boppam laa lay wax nii yëkkati na kàddu di laajte ba xam site internet ganaye boobee kon bind mbir ma ñoo ñan direct évodé de coup de tonnerre kay moo am musiba mbaa ba kumba ak seen wax ju rëy jiñ fi wax démb bi nga waaw daal dina koy nee na yëgul tinul mësula bind lii ca yàlla 24 heures ne xam nga coow lii lan la saf waaw sàncaw ci est ya te sénégalais yi nag dofuñu dañuy xalaat duñ fàtte te nag ba Ousmane Sonko kon yëkkatey kaddoo mi ci 94 yi ak léegi ni la day amul dara lu bees lu ca am laa la wax Mamour Diallo ak Seydou Sarr muñ ta tudd sax dëgluwuñu leen mësuñ leen a dëglu 24 heures yéene kaay ne te gis nga lii waa kër Macky Sall di def waaw wallaay Macky Sall du ci gagné dara dara dara ba ci biir sax daf dama ne nguuru Macky Sall googee moo cay tuuti ndax askan wa boppam kon nañuy mujj fippu jéppi leen enquête yéene a man day duma wanteer sama bopp gor laa garmi laa barke na sur laay et man duma sa morom ñëw politique bu Géejawaay googee waaw nee nañu Alaaji Malick Gakou tey dadul maasu Alioune Sall laa la wax du moroomam du mappandoom Alioune Sall du dara lu dul ab simple maire te Alioune Sall nag gis nga su ma gi nekkuloon président walaay du ma nekk maire mukk Alaaji Malick Gakou nag ndëkk sërëxal gii di PS bi ñu koy gasal walaay dootu ci duggaat la ko daloon local 2014 ci Vox Populi de gis nga waa Benno Bokk Yaakaar yi waaw war nañuy def seen Macky Sall libération yi ne kay ne dée Macky xanaa xamoo groupe consultatif ba ca Paris ba ñuy dem di wuti xaalis waaw onze mille fa jëlee allahu akbar ah lu Abdoulaye Wade Moussa am ak Abdou Diouf boo leen boolee Macky am na seen ñaar kon mbir ma dox na lees ko yéene kay ne waaye Abdoulaye Wade ngi ñëw de maama ngi ñëw maa maa ngi ñëw maama ngi ñëw ma ne Viviane Wade day soxna sax mooy jiitu si ngir wàllum tuxu geeg yooyee parce que Abdoulaye Wade day tuxu na ca fan résidence jógee kër maître ma dikke ñaade libération yi ne de en tout cas Prodac day waaw jàppati leen nag ci beneenug marché un milliard awlo ma ne leen dañoo waroon a defaraat nag aménagé trois cent soixante hectares yu daggee nekk kon te kër Momar Sarr kër Samba Kane CFA Itado ak Matam waaye ARMP de ak direction centrale <laughs> dem ba yaakaar yaakaar ne li ma foog milliard nekkul ne mooy milliard réew moo xam ne ay milliard milliard milliard milliard est-ce que milliard mooy junni ci ay million non yaakaaruma ko de boo paree ma ne la tëjal Samsung bi yéenekaay yi ñu dalal Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf batóor gay matamoon dammel Ousmane Sonko ko gën a nekk ci guuta ubbi l'Observateur jëflante bu taq suuf di connexion dansereuse bi ñu ne njiital Pastef li di Ousmane Sonko da koo am ak benn société bu ñu naan Tullow Oil nekk ca Ghana l'Observateur xëy na indi yeneen i leeral yu mu am ci mbir mi yéenekaay bi nañu coow loolee laalewul dara ak wàllu politique rapport confidentiel la am ci mbir mille dollars le quotidien mel na ku naan ñu yaa war a wax yaa ñu saf bu mu la tax a wax loo xamul loolee muy bëgg dal Ousmane Sonko ndax Ousmane Sonko ci xel mi daan songe ci mooy toog a faxasu ci la toll coowal 94 milliards yi mu fi sulli woon coow laa ngay bëgg a ci kawam communication bi doonoon doole moo ko tàmbalee sànq direct info nañu waaye am na lu xew ci tuuma yu ñu yëkkati gàll ko ci ndoddal Ousmane Sonko ndax Michel Damsen di journaliste Angleterre bu jigéen bi ñu ne mu bind Ousmane Sonko direct info nee ndaw si weddi ko nee na bindul article bi source ñax gu wow nar naa lakk lakkaale gu tooy ndax Oxfam gi ñu tudd ci mbiri tulow bu ñu moytuwul danañu ñàkk seen agrément fii ci réewum Sénégal ni ko wàl Lead Africa ñàkkee woon ba ñu leen tuddee ci coowal financement bu mouvement Y en a marre Le Quotidien nañu Birahim Seck ak i mbokkam mu di waa Forum Civil démb conférence de presse nañu wax nañu fa ne dañoo bëgg procureur bi jóg jël dossier 94 milliards bi dox ci diggante Ousmane Sonko ak Mamour Diallo directeur des domaines lijjanti ko def ci enquête ba lépp leer ci bopp waa réew mi réew mi quotidien xëye Birahim Seck coordonnateur bu forum civil moo ki kàddoom Birahim Seck di fa wax naan muy waa cour des comptes di waa inspection générale d'état di waa autorité de régulation des marchés publics ku ci nekk amel nga ñub rapport par rapport ak wote présidentiel yi war a am ci réew mi février 2019 Sud Quotidien mi ngi ñuy xamal ne yeggaguñu ci campagne électorale bi waaye candidat yi yàquñu ko fenn ñoo réseaux sociaux yi Facebook ak Twitter ak xeet yooy di ca waxal seen bopp yu baax enquête dina kay nañu candidat Macky moom teg na stratégème démb la nas plan de guerre am fa la waxeet ne léegi seen i yëngu-yëngu ñoom waa Benno Bokk Yaakaar directoire de campagne bu Benno Bokk Yaakaar moo koy coordonné directoire de campagne boobee fan yi di ñëw Macky Sall ne dinañu ko siiwal las yi ne kay nañu Macky Sall mi ngi waajal samp directoire de campagne la woote woon am ndaje ca palais de la République i allié Bokk Yaakaar ngir ñu waxtaane ana nan la ñuy duggee ci campagne électorale bi bi Abdoulaye Wade mi ngi ñëw journal Les Échos moo ko bind yéenekaay bi dañu ginnaaw at ak lu teg góor gi ñëwul Sénégal Abdoulaye Wade mi ngi waajal te bu dikkee nag du dal kër maître Madické Niang ndax da koo geddoon geneen kër gu nekk fan résidence ca boori kër Léopold Sédar Senghor foofe lay dal madame Viviane Wade moo war a njëkk a ñëw bu ñëwee waajal tuxu gi yóbbu bagage yi Wade moom it a ñëw ñu ñëwaat ci l'Observateur seeti fa Oumar Ndoye mooy directeur des études ca délégation entrepreneuriat rapide mu di DER it sa coordonnateur bu plateforme banlieue en émergence leeral nag ci ci waxtaan yi mu seq ak waa l'Observateur li tax mu bokk ci APR ba nuppi di sos beneen plateforme buy jàppale Macky Sall nee na it kii di Ousmane Sonko wax na ba yàqu wax na it ba yàqal boppam li mu def wute wut ak jëlug fetal dóor ko ci boppam Ibrahima Khalilou Fadiga ci boppam mooy wax ci record yéenekaay yëral journal bi Fadiga nee na Hervé Renard mi ñu tabb entraîneur bi gën a taqe loolee lu jaadu la nee na Sadio maane li ko xañ Ballon door bi ren ñu jox ko Mohamed Salah moo Salah dafa def lu rëy ak équipe nationale bu Égypte dooru fi fayuu fi